mbokk internet yi dal leen ak jàmm mu Sénégal baadu day bëgg a tukki jëli lam daal di tëggu loole nag moom lañu ñu daal di seetlu ndax saay su ne rek kenn daal di génn ne moom daal ab rab la wala boog moom ab prophète la ginnaaw ki nga xamante ni nag ah, moom mooy nag kii fi daal di gisoon mu muy Seyda Zaman mi nga xamante ni moom itam génnoon na ci réseaux sociaux yi di xam ne nii rek ne ab prophète la moom nag jamono ji coowam mi ngi sunu ginnaaw fàtte nañu ko wante beneen épisode la ñuy dund euh, jamono ji ak ki nga xamante ni moom mooy Bara Xëxuur euh, nekk nag benn nit koo xamante ni nag dafa daal di taxawal ab sectam ñoom ñi nag nekk ay pël sax ndax ci seenub julli la ñuy daal di dégg ñuy làkk ñoom ñi nak nekk ab secte goo xamante ni nag fële euh, ca diwaanu Kolda nag lañu ñu daal di nag bàyyeekoo ñoom ñi taxawal seen benn village dem fa sax ba daal di fay nag daal tabax ab kaaba goo xamante ni nee ñu fa la ñuy daal di dem di ndax seen prophète bile eh, nga xamante ni jamono ji moom la ñu daal di yaakaar ginnaaw nag ki nga xam ne moom moo daal di eh, fondé nag daal di taxawal boobu lay yoon di secte boobu eh, moom mi nag daal di ñàkk bakkanam ginnaaw doomam daal di koy nak faat dóor ko ab bal mu dee ndax ab sacrifice goo xam ne dafa daal di defoon ki nga xamante ni moom lu sukk juddi benn ci ay doomam goo xam ne taawam la woon ndax ci sacrifice bi moo nekk tabaski gi ñu ne dañuy daal di ay roy fi amoon ci ay jamono mooy daan sacrifier sa doom bi nga jur au lieu de xar ginnaaw bi nga xamee ni nag léegi xar la ñuy daal di rey moom mu daal di kii moom doomam daal di koy sacrifier ngir màggal bésum tabaski loolee am ca beneen jamono ba beneen tabaski ñëw ca beneen at mu daal di décider ne day jëlaat beneen doomam daal di koy nag def na mu defoon taawam ba doom jane du ko dal daal di daw nag génn dëkk ba ci yeneeni jamono ginnaaw bi mu daal di ñëw jël bal dóor ko bàyyi baayam ja mu daal di nag faatu baayam jooju moo nekkoon nag nga xamante ni moo daal di nag créé bile secte jamono ji nag ñu ngi lëmbee toile bi rawatina nag réseaux sociaux yëpp ndax seen révélation yoo xam ne ñu ngi koy daal di def wante luñ ci mën a jàpp rek mooy ne fu mu toll nii ñoom daal nee ñu nag dañoo am seen prophète bopp de seen yu weex di julli te bu ñuy julli nag dañuy daal di làkk pulaar am nañu seen kaaba goo xamante ni moom la dal di jiitu liñ ci mën a jàngatee rek mooy ni rek fu ton nii ak li nga xamante ni mooy doole yi réseaux sociaux yi am nag moo tax ku ci nekk lu la neex nga xëy daal di koy créer nag ngir nit yi nag mën laa daal di bàyyi xel loolee nag la daal di dund jamono ji ak secte bi nga xamante ni nag dañoo jóg nee nañu ngir nag daal di wanal ak askan bi seen li nga xamante ni moom mooy seen prophète gi ñu gëm yaakaar. dama foog ni dama foog ni ndof la te jaruñu sax jox importance. bi yonent bi wàccee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen yonent wàccaatul te ku wàccaat yonent nga soytaane nga parce que soytaane def na lu ëpp loolu mënuñoo indi itam benn téere bu jógewul ci yàlla donte woon mën nañu indi bibliothèque bu ñu xalaat ba mu fees dell mais defe naa ni am réew bu fekkee ñoom dañuy def loo xam ne injustice la état def ci am responsabilité bu njëkk bi mooy nee nañu waa ji daf doon tëbaskee doomam parce que bu tabaski jotee dafay bantale jël benn bant sànni ku mu daal mu rey la bëggoon na ko def doomam doomam rey ko bakkan nag bu rootee responsabilité gouvernement dafay daal di feeñ loolu benn la ñaareel bi ci des dañuy def ci wàllu finance lebal la ni la le 10 janvier nga may fay le 10 boobu bu jëf jotee te demoo fayoo leen bu ñu ñëwee sa kër lu ñu fa fekk dañ koy jël force loolu itam état seetaan na ci askanam jël sa nag wala jël sa tool wala jël sa lu ñu mën di jël sa jabar loolu laneen la kantaana lu jëm ci wàllu diine euh, Mohamed bu dee côté diine l'islam moom ñii nga xam ne woyuwuñu sax l'islam am na ñu ñu tane ci biir dina l'islam parce que nag ma maa tay gi ak lu ma neex gi parce que bu jigéen taxawee ni man maa yonent wala kenn taxaw ni man maay Cheikh Tidiane wala kenn taxaw di wax ay ay ay yoo xam ne da ngay xam ne kii carrément dafa dof ñu koy bàyyi mu nekk ci réew mi di def ay rencontre di dajale ay doomu jàmbur te lenn lalu ko dul ak ceytaane ak ndof après ndaw yi di ci ànd état yi itam côté boobu faaw mu dimbali nit ñi parce que sect bi bu ñu ko sàgganee nii bàyyi ko nii mais fu mu jëm baaxul parce que dof mënut a passé ñëw ci àll bi taxawal say sagar yi Sénégal donc c'est vrai que Afrique nag yaatu na bari na ay secte yu fi am mais bii moom euh, dafa yéeme laneen la Abdoulaye Mbow ñu ngi wax ne sax fondateur bi mës naa tabaskee doomam waaye ñaar fukki at a ngi nii ban ko créé ba léegi état bi waxu ci dara waaw loolu moo ëllëg xel yi lu tax état boobu léegi wax si dara te jamono yi sax dañoo war a sant li nga xam ne moo di développement technique l' information de la communication ba tax na vidéo bi c' est viral ñëpp ko si jot mais li mën am ba mën am dañu ne liberté de culte constitution bi moo ko wax waaye liberté culte dëgg la waaye liberté culte boo xam ne dañ ko war a encadrer liberté de culte à la limite boo xam ne dañ ko war a ne wax li nga xam ne moo di phénomène de terrorisme gis nga Boko Haram ngay gis ni effectivement euh, ñàkk xool ñàkk Euh, euh, euh, surveiller moo indi loolu lépp ba tax na jamono ji dëkk yooyu di dund ay jafe-jafe Sénégal nag gis nga dama koy wax ci kàddu goo xam ne pour jot li rak la parce que itam mosoo gis Mansour nit ku ñëwaat ne man maay Alaaji Maalik si kaw suuf mosoo gis nit ñoo ne man maay Cheikh Ahmadou Bamba si kaw suuf wala maay Limaam Laay ci kaw suuf maa jamono maa ñëwaat parce que itam am na ñoo xam ne ñoo leen fi nekkal te duñ si may li nga xam ne toll ni tarfatal ay ne la ba tax na lépp loo xam ne mi ngi si wàllu diine gi état na def rôle am waaye itam ñi nga xam ñoo ngànk ñun ñëpp nekk ay jullit nañu xeex parce que itam diine gi la ñëw tilimal diine gi la ñëw euh, salteel wu te kenn waru ko waru ko nangu ñu wax ci leneen kon Abdoulaye Mbow euh, ci acteurs yi yëngatu ci wàllu culture ak euh, musique ñoom nag mesures yi ñu jël soxal mbas mi di Covid 19 rawatina ñaareelu vague bi na annoncé andi na leen jafe-jafe rawatina itam seen yenit ci ay événement yu nu daal di laf lu mu ci doon lu ne itam ginnaaw ay proposition yu bari bari.